الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة مباركة منيرة شرف الله نبيه وعظمه بالرسالة وأعلى منزلته وارتفع بالإنسانية من الحضيض إلى حيث النور والهدى أنقذها من الظلمات الجهل والوثنيه إلى سبيل العلم والتوحيد وفي هذه الليلة أيها الأحباب بزعت أول شعلة إلهية فوق الكرة الأرضية فعداءت أرجاءها وزلزلت أركانها وأبادت ظلمة العصبية وآفاتها وفي هذه الليلة نزلت الملائكة من عالميها الروحاني الذي لا يحده حدود ولا يحيط به مقدار إخواني وفي هذه الليلة المباركة نزل إلى هذا العالم أول آية من كتاب الله العزيز الذي جمع خير الإنسانية وما تحتاجه البشرية الضالة الطائحة fi diiniha wa duniyaaha mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ci fukki fan yu mujj ci weeru koor te fukki fan yu mujj ci weeru koor jullit dafa am taxawaay yum ci war a taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaay Aïcha moo ñuy nettali ana lan mooy taxawaayam ci fukki fan yu mujj ci weeru koor yaay Aïcha ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fukki fan yu mujj ci weeru koor saddami izara day takk tubéyam loolu loo ci dégg mooy day sori soxna yi day wàcc lalam wa ayqaza ahla mu yeewaa kër gi ñépp wa ahya layla mu dundal guddi gi kon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam su fekkente ne moom moo dul nelaw guddi ci weeru koor fukki fan yu mujj te moom yàlla jéggal na ko ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj kon ñun lan lañ war a def ñun bu fekkee yonent bi daawul nelaw fukki fan yu mujj ci weeru koor ndax importance guddi googu ndax li ci nekk ci ay xéewal ak ay yiw ci guddi googu mbokk yi guddi gu barkeel googu lan moo tax mu nekk guddi gu barkeel ndax sunu boroom subhanahu wa taala ci la wàcc alquranul karim inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka yàlla nee na ci guddi googu laa wàcc alquranul karim guddi gu am barke mu ne ci guddi googu ci la yàlla teddale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yàlla terale lu tax parce que ci lañ ko jox quran ci guddi googu ci la yàlla màggale yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jox ko taraanga boo xam ne kenn dootu ko jox doomu aadama ci kaw suuf kenn dootu ko tarale doomu aadama ci kaw suuf borom bi subhaanahu wa taala jël kàddoom jox ko jibril kàddu yàlla ni mu tedde jox ko jibril ni mu tedde mu jox ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi kon guddig laylatul qadr du guddi gu ñuy fanaanee fecc du guddi gu ñuy fanaanee tëgg du guddi gu ñuy fanaanee woy guddi la goo xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngale na guddi googu naka la ci jullit di fanaanee ayyuhal ahbab guddi googu ci la yàlla yëkkatee martaba yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci guddi googu la yàlla yëkkatee xeetu doomu aadama mbindeef moomu ñu naan doomu aadama ci guddi laylatul qadr la ko yàlla joxee taraanga te mooy yàlla jël kàddoom jox ko mbindeef moomu pour yëkkati ko ci suuf su suufe si pour yëkkati ko ci suuf su tilim si pour yëkkati ko ci bàkkaar yi mu nekk pour génne ko ci lëndëm gi mu nekk yàlla jël kàddoom mu nekk leer mu nekk barke mu nekk kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min alzulumaati ila annuur man yàlla subhaanahu wa taala yow muhammad alayhi salaatu wassalaam man yàlla maa la jox sama kàddu maa la jox sama téere pour nga génne doomu aadama yi ci lëndëm gi ñu nekk mbokk yi ci guddi googu ci la yàlla defal doomu aadama taraanga pour xettali ko pour jàppale ko pour génne ko ci li mu nekk fan la ko yàlla jëme ila haysu nuur wal huda yàlla jàpp doomu aadama pour mu yëkkatiku li yàlla indil doomu aadama fan la ko bàyyeekoo ci kaw pour mu ñëw jàpp ci loxo doomu aadama yéegalaat ko ci kaw gi mu bàyyeekoo woon pour delloo ko wat foofu yàlla indil ko leer waaye yàlla yemul rek ci indil ko leer waaye wal huda ak njub ñaar la yàlla indi ci laylatul qadr defal ko doomu aadama yi muy seen taraanga ñaari mbir bi ci njëkk mooy lan an nuur mooy qur'an moo tax mu ne kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumat alquran leer la yàlla wàcce ko ci laylatul qadr njub gi mooy lan mooy muhammad moo tax mu ne wa in tutuy uhu tëhtadu su ngeen ko toppee rek daa di jub yamul foofu sax dafa gëñ ci màggaayam ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kon julit yi war nañu delluwaat jàngaat diine càmbaraat ko déglu aaya yeeg hadis yi bañ ko déglu rek dégg romb sunu boroom subhanahu wa taala xéewal yu gën a rëy yi mu defal doomu aadama ci kaw suuf mooy mu wàcce ci moom leer leer gi mooy qur'an mooy mu yónnee ko njub njub gi mooy muhammad moo tax mu ne ko ku la topp rek jub ku topp muhammad jub lim leen cent vingt quatre mille personnes yi ko toppoon ci jamonoom ana kan moo ci dëng ma ne lim leen taabiin yi taabi taabiin même ba ci suñu réew mii ñi topp muhammad dañoo jub waxuma ñi toppantu de ñi topp laa wax dañoo jub kenn musta gis ku topp yonent yàlla muhammad ñu ne cam misaal bi mooy xool leen abubakrin saddiq moom mi toppoon toppantuwul nañu jël adduna bi yépp ñu teg ci balance ñu jël abubakar teg ci balance ñu xool ku gën yenent bi nee na wallahi maa wataati l ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr kaw suuf su yonent yi jàllee su yonent yi jàllee su yonent yi jàllee ku mel ni abubakar doxul ci kaw suuf loolu moo lay wan ne yonent yi bi ñu demee sahaaba yi ñoo fi gën ginnaaw yonent yi amul keneen nag ñooñu buñ demee ña toppoon ci ñoom ñoo ca gën xayru nnaas qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ba àddina bi di jeex siècle bi gën ci siècle yi mooy siècle yonent yàlla muhammad ak ña ca tegu ak ña ca tegu ba àddina bi di jeex noonu la ñuy demee kon laylatul qadr du guddi gu ñuy nelaw du guddi gu ñuy fecc laa wax du guddi gu ñuy wër di taxawaalu du guddi gu ñuy taxaw di yuuxu bu ba set yonent bi jàngale wu ko woon noonu laylatul qadr mooy guddi gi nga xam ne ci la yàlla anqazaha min zulumaatil jahl ci la yàlla mosalee nit ñi ci lëndëmu réer lu tax parce que yàlla yónnee ñu ci xam-xam xam-xam ku ko am mucc nga ci réer xam-xam bi lan la mooy quraan sunu borom subhanahu wa taala ci guddig laylatul qadr lañ ko jox pour doomu aadama yi mën a mucc ci lëndëmu réer min azulumaatil jahl lépp lu dul alquran rek réer la moo tax ñu tuddee ko zulumaat lépp loo nekk te alquran nekku ci jàppal ne ci réer nga nekk soo ko yëgeeg soo ko yëgul moo tax yàlla jox ñu alquran pour ñu mën a génn ci réer waaye génn ci xërëm alwasaniya génn ci bokkaale génn ci yaakaar lu dul yàlla génn ci wóolu lu dul yàlla génn ci xeetu xërëm ba mu jeex takk xam ngeen ne ba léegi ñu ngi màggal laylatul qadr waaye ba léegi lenn ci ñun dañuy jaamu xërëm léeg-léeg nga gis ku bokk ak yow sàppe ci biir jàkka ji ci guddig laylatul qadr waaye ndigg li ay béjjën moo ci nekk gàllaaj moo ci nekk ay weñ yu ñuul moo nekk ci loxo yi ay weñ yu xonq yàggagul dara amagul weer Sénégal gi yëpp dañoo xëy ku nekk takk sagar bu xonq soo nee lu xew ñu ne doomu jinne moo réer loolu xërëm la ma ne ñu ëpp ci ñun wa ma yumin aktharuhum billah illa wa hum mushrikun li ëpp ci réew mi dañuy jaamu yàlla waaye ay bokkaalekat lañ te bokkaale day màbb jëf xoolal yonent bi ni mu toll yàlla duut ko baaraam ne ko la in ashrakta la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin yow muhammad ni ngay toll di màgg yépp bis boo ma bokkaalee sa jëf yëpp yàqu na te di nga bokk ci ñi perte kon keneen ku dul muhammad lan lañ la war a wax ixwaani fillah ci laylatul qadr ci la yàlla musalee xeet wi ci réer ak jaamu xërëm ak topp xërëm fan la ñu yàlla jëme ila sabili l ilmi wa tawxid yàlla yóbbu ñu ci yoonu xam-xam moo tax diina ji nekk diina xam-xam aaya bi ci njëkk a wàcc nekk iqra bismi rabbika allazi xalaq jullit du nekk làmbatukat jullit du nekk taxankatu guddi jullit lépp lu muy def da koy teg ci xam-xam moo tax ñu ne la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil maarifa wala al maarifa illa bil quran wa man arafa quran arafa rabbah wa man arafa rabba daa ilayh wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin mbokk yi ci yàlla jullit du mun a am pas-pas lu dul xelam set xel mi xalaat ni ko ko yàlla mayee mu ciy xalaat looloo tax gis ngeen waa safara biñ duggee safara bokk na ci liñ doon rëccu naan ñun buñ doon xalaat law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi sair kon ku yàlla may xel te doo ci xalaat booy dee dugg safara te doo mun a am pas-pas bu wér parce que ñàkk xalaat moo tax nga takk béjjën ñàkk xalaat moo tax nga takk lam ñàkk xalaat moo tax nga sangoo deret lu tax xalaatal béjjën bi fu mu jóge ci bopp xar mi ana xar mi rendi nañ ko ana yàpp bi lekk nañ ko ana yax yi seeñu nañ ko ana der bi daaj nañ ko kooku musalul boppam ndax mun na laa musal loolu la xalaat di jëriñ moo tax ñu ne laa aqida illa bil aql ku am xel rek mooy sellal yàlla ku am xel waaye koo gis muy bokkaale di sangoo deret di takk béjjën di takk lam bu ñuul di takk lam bu ñuul ak bu xonq ak bu weex bokkaale kat la soo ko nee lii nag mu ne kii def may musal mbokk yi ne leen yàlla jubal yàlla nañ yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañ yàlla wan neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko alhamdulillah alhamdulillahi waxda wala nabudu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ixwani fi llah wa fi hadihi llayla arsadana allahu subhanahu wa taala ila sabili lilmi waltawxid mbokk yi ci guddi googu la ñu yàlla joxe xam-xam ak kennal yàlla ku am xel mooy am aqida mooy am pas-pas bu wér ku am pas-pas bu wér am gëm yàlla ku am ngëm yàlla war a am xam-xam xam-xam nag duñ ko mun a am lu dul alquran ku xam alquran xam yàlla ku xam yàlla woo nit ñi jëme leen ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci guddi googu ci la ñu joxee diiney kennal yàlla diiney wéetal yàlla kenn kuy woyoo jullit nit warul gëm yàlla ba pare nekk bokkaalekat bu fekkee ngëm gi dëggu na su fekkee ngëm gi leer na xam na li mu gëm du nekk bokkaalekat wa fi hadi leyla bazaat awalu suxlatin ilahi fawqa alkurati al ardiya ci guddi goog ci lañu sunu borom subhanahu wa taala niitalee torche bi pour yoon wi leer yàlla moo nu nettali balaa alquran ñëw balaa yàlla yónni muhammad mu ne wa kuntum ala shafa hufratin min annar fa anqazakum minha doomu aadama yi nekk ci lëndëm ba jëm safara kenn xamul fooy teg sa tànk yàlla niital ñu torche bi pour mbir mi leer ñu xam fu ñuy teg suñu tànk première aaye yu yàlla jox jibril mu xotti pee yu sell yi xotti asamaan si ñëw fekk yont yàlla muhammad ci xaaru xira ne ko iqra loolu ci guddig laylatul qadr la woon yàlla daal di leeral addina bi ba mu leer naññ ci wàllu yépp waaye ci guddi googu ci la yàlla yëngal ci la yàlla tremble mbooleem suuf si pegg yi li ci nekkoon jaamukatu xërëm ñi ci nekkoon ay buur yu buuru woon ci kaw ni ñi nekk ay yàlla def seeni bopp keroog bi alquran bi ne takk ci kaw suuf keroog la seen trône yi commencé yëngu seen fauteuil yi ñu doon toog keroog la ñu yëg ne am na lu bees lu wàcc ci kaw suuf xataa jinne yi dañoo sentir keroog ne ah changement am na ci àdduna bi ñoom ñoo ko wax wa anna kunna naqudu minha maqaida lilsamci faman yastami lan yajid lahu shahaban rashada wa anna la nadri asharrun urida biman fi l ard am arada bihim rabbuhum rashada mbokk yi keroog ba jinnay naawee jëm kaw asamaan di déglu nañ ko daan defee dañoo fekk ñu tëj buntu asamaan yi dañoo fekk ñu teg ay gardien ñu yor ay jumi safara borom bi subhanahu wa taala tàggat leen ñuy garder asamaan yi benn jinne dootul déglu si jinne bu ñëw déglu sunu borom subhanahu wa taala envoyé la la jumu safara jinne yi yaaxale xamuñu loolu lu ko waral ba ñoom ñu wàcc naan ah ñun de xamuñu ndax yàlla dafa indil waa suuf programme bu leen di ëmbal njub wala musiba la wàcc bugg a wàcc ci ñoom hatta keroog ba alquran takkee ci kaw suuf keroog ba aaya yi njëkkee wàcc jinne yi yëg nañ ne adduna bi am na changement te ñun ba léegi alquran baa ngi fi ñun changé guñu sunu borom subhanahu wa taala mu ne guddi googu wa fi hadihi layla ci guddi googu nazalatil malaika ci la yàlla tàggate malaaka yi min aalamihim ñu bàyyi seen monde bu laab seen adduna ñoom fa ñuy dund dafa set seen adduna ñoom fa ñuy dund dafa leer foofu dafa féex foofu amul bokkaale foofu amul mooy yàlla waaye xoolal li pee yooyu di sell li muy laab li muy set li muy xeeñ sunu borom subhanahu wa taala bàyyiloo malaaka yi pee yu sell yooyu ne leen wàcc leen ci kaw suuf tey lu tax parce que yërmande mooy wàcc yéen malaaka yi da ngeen di wàcc ànd ak mala doomu aadama yi bokk ak ñoom yërmande yooyu cheikh bi doo fay sa portable bi du ngeen ko ko fayal wa fi hasi layla ci guddi googu nazalatil malaika ci la malaaka yi wàcc sunu borom subhanahu wa taala wax ko ci quran mu ne tanazzalul malaika bu malaaka yi wàccoon rek doy na waaye xoolal yàlla dafa jël mbindeef mi gën a màgg ci malaaka yi boole ko ak ñoom muy jibril malaaka yi dong doyoon nañ waaye guddi gi moo rëy guddi gee màgg guddi gee am barke guddi gee le am leer sunu borom subhanahu wa taala ne fokk jibril ànd ak malaaka yi loolu doyul teraanga suñ ne woon président moo war a ñëw ba caag ñu ne warta ñëw ministre moo premier ministre moo war a ñëw wala warta ñëw ministre mooy ñëw wala warta ñëw chef de cabinet mooy ñëw xoolal daraja yi ni muy wàccee waaye bu ñu nee premier ministre mooy ñëw ànd ak président du ngeen ci dégg mooy fa ñu jëm dafa rëy malaaka yi ñoo wàcc ànd ak seen chef jibril kan mooy jibril zi quwatin inda zil arsh makinin muta thamma ca yàlla foofu amin grade boobu la fa am yàlla di ko wàcce kon guddi googu du guddi gu ñuy foo waaye gan guddi la gan guddi la foofu la wax ji nekk sunu borom subhanahu wa taala moo ko nëbb yonent bi munoon na ko ne gii la waaye mu xamal ko ko fàtteloo ko ko yonent bi ne li ma leer mooy ci fukki fan yu mujj la nekk xoolal abdullah ibnu abbas dafa waat ci yàlla ne guddi ñaar fukki fan la ak juróom-ñaar moom waat la def waaye xoola yonent bi mu ne na ngeen ko xool ci yu tool yi ci fukki fan yu mujj yi ci yu tool yi na ngeen ko ci seet kon loolu loo ciy dégg te pourtant su président de la république taxawoon tey télé ne waat ci yàlla ne ku ma fekk place sangam nekk faak man fukki fan yu gudd yu mujj ci weeru koor ba mu jeex takk nga nekk faak man ba mu jeex rek dinaa la may terrain VDN danañ dem wala duñ dem billahi wallahi wa taalahi da nga gis koo xam ne bi muy dem dafa yóbbaale waa kër gi yëpp suñ dee mu ne daggalal ku nekk benn paak ñii ñëpp dañoo ñëw fii lañ nekk ak man waaw liñ ñu dig foofu ak liñ ñu dig fii fee lan la aljanna fii après kër googu fi nga koy bàyyi loo ko tabax tabax fi nga koy bàyyi doo ci yóbbaale brique doo ci yóbbaale xott doo ci yóbbaale morse doom yi fi nga leen di bàyyi soxna si fi nga leen di bàyyi lépp fi nga leen di bàyyi yàlla dig ñu ci guddi googu guddi goo xam ne xayrun min alf shahr moo gën junni weer junni weer boo ko doon calculer junni at lay nekk juróom-ñett fukki at te doomu aadama dundatul tey juróom-ñett fukki at benn guddi nga am ci tiyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñett fukki at kon war na noo xam li nu am yàlla moo baax rek mu may nu loolu pour nu màng ko dugg aljanna aljanna dafa yomb yenn saa yi nga dégg ku ne wuu limaan yéen li ngeen di wax dafa mel na jaamu yàlla dafa jafe dugg àjjana metti na déedéet dugg àjjana moo gën a yomb lépp xoolal lii guddi gi yoo xam ne boo ci jaamoo yàlla nga wër ko ba daj ko ba am ko nga am tiyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñett fukki at loolu amul fenn ci weer wi nu nekk lan lañ ubbee xutba bi mooy weeru promotion boo defee benn julli ñu fay la ci double ko dañ koy double boo doon am fukk ñu fay la ñaar fukk loolu fan lañ koy jëlee kon war nañu xam li ñu am yal nañ ko yàlla xam loo yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko ci attey juma su élimaan taxawee ci minbar di wax képp ku wax même boo nee ki nga dendal puusal sa jumaa yàqu na même boo nee kenn kaay toog fii sa jumaa yàqu na kon nanuy ragal yàlla bu ñu ñëwatee jumaa ñu xam lan mooy atte jumaa balaa ñuy au lieu ñu am tiyaaba ci jumaa ñu yenu fa bàkkaar daat dem ci jumaa soo ñëwee fekk nit ñu toog nga xuus mbooloo mi di leen jéggi jëm ca kanam yenu nga bàkkaar yu dul jeex su ilimaan di wax nga ni kenn noppil wala kenn kaay toog fii wala yow amuloo jumaa yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yow amoo jumaa allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabbit alqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an taruddana ala dinika maradan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabi alakhira allahuma la tajalna min allazina yasumuna wa yaqumuna wa lam yurdika ya rab اللهم لا تجعلنا من الذين يصومون ويقومون ولم يردك يا رب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله